atum 2021 ñi ngi fii fi Daaru Xuddoos ci équipe 7 fekk fa superviseur bi Mor Dieng ay ndaw yu takku ci ndigalul maire Abdou Lahad Ka ñu fas yéene saytu dëkk bu sel bi Touba ba mu set wicc ci lool nag xam ngeen liggéey boobu directeur cabinet Thierno Diakhaté di leen saytu mboolem mu toll ci ñetti téeméeri ndaw yuñ jël ngir ñu sell dëkk bu sell bi Touba ci lool nag bi ñëwee fii ci Daaru Xuddoos fekk nañ fi équipe 7 ñu déglu nag ñoom kàddu yi ñu yëkkatee bi ñu egsee maanaam ñun dañuy sant yàlla bu baax a baax bi ñu newee dëkkub sëñ Bamba bi di fi liggéey di fi daan suñu doole parce liggéey daan sa doole lu la mayul rek leneen du la ko may parce liggéey daan sa doole moo war képp koo xamante ne bi xale nga rawatina nag nga nekk ak ay mag ñoo xamante ne mën nañ la yaay lool rek war na la yee waaw góorgóorlu rek parce li ñu defal nii lu am solo la kontaan nañ ci bu baax a baax a baax a baax parce que dañuy ñaan yàlla daal comme tàmbali nañ ci bisimilah rahmaani rahim yàlla suñu borom may nu ñu àggale kooku alhamdulilahi rabil alamin rawatina nag ngay liggéey dëkk mel ni dëkkub sëñ Bamba nga fiy liggéey bu ñu la fayul sax loolu noonu yàlla suñu borom dala koy fay parce que yàlla suñu borom moo gën lépp waaye yàlla tey euh, dafa dogal ñun ñuy liggéey fii ñu si gis suñu bu baax baax. gërëm ci mbégte am mbégte ndax lii sant yàlla la xëy nekk ci mbedd Serigne Touba yi di ko bale rek doy na ak sant yàlla bu weer dee ñu musal la loo xam ne di nga ci mën a suturloo yaag sa njaboot loolu alhamdulilah rabbil aalamiina kon ñu ngi sant yàlla bu baax di ñaan yàlla képp ku ci nekk rek nga góor góorgóorlu xam ne liggéey la benn liggéey ja tax yëpp te lii buñ la fayutoon dara sax sant yàlla la nekk ci mbedd Serigne Touba yi di bale rek alhamdulilah rabbil alamina ki nga xamante ne moo di Mor Dieng moom ne mooy superviseur liggéey bi wax na tamit naka la ñu organiser liggéey bi équipe 7 bi nga xam ne moo ko jiite taxawaay macha allah rafet lool ñu ko ci Mor man la Mor Dieng maay chef équipe bi bale ak 7 mooy li ko commencé buntu kër sëñ Mbacke Madina ci jumaa ja ñëw station Darou Khoudoss jàll ba kër sëñ Sidi mu sëñ Abdou ko organisé mooy eh, benn équipe la bu toll ci personne personnes. Ah, ak man mi chef d'équipe bu ñëy ñëy 21 léegi bu ñu xëyee dañuy dañuy dag mbéd mi manam ku na dañ lay natal li nga wara balé bale ci do ko continué dépran ku na ñu na la commencé fi yam fee bu ko défé man may maay supervisé euh, groupe bi ma andal man nak amna sama superviseur bu joggé maire di ñëw mais man maay and ak ñom bu féké dafa am ci matériel bu ya-, lu yaq wala lu manké ma lañ koy wax ma jéem a def nu ñuy lu may débrouiller ba ba baax su el ma wara yégal wa maire bi la ma yégal len ko su jumtu kay manke bu sama superviseur dikkee ya, moom euh Cheikh Awa Bala Diop ma ko nangam ak nangam dafa manke mom mo bind rapport bob man itam heure ma xëyee dana def rapport comme ñu xey ci heure bu ñew ñu signé sen présence ma taxaw and ak ñom ñu liggéey ba wacc jot non da lañu doxale xana am ci fierté bu baax baax euh ndax liggéey neex na fépp te waye liggéeyal sa dëkk dafa daax liggéeyal sa dëkk dafa daax ndax mo gën ci ci ci ci poos te ci ngay gëna am fierté tay tim wax deug yalla kilifa yi def nañ li leen war euh en tant que euh, bu ñaanalee Cheikh mundakha mu yag fi de wér ñaanal señ ciir monsieur Abdoul ñi ngi gëreum monsieur le maire Serigne abdou Ahad Ka parce que gor gor na bax yëg nañ lim def ba projet bi toll ni ak nim def ba salaire itam mëna toll ni ndax neexalu ñu dañuy fay wax deug yalla amna salaire yo xamne salaire la bay neexal la mais mom day fay li joxe wax deug yalla ñi ci sant suñu borom bax content nañ nak ndax di defar sa dekk dafa neex mbedd mi tay buma xeye tay sama nijaay jaar wala sama papa wala sama sëriñ jëm ca jumaa ja du gis benn xeer wala suuf su koy pakastal wala luy tilimal otoom loolu feertal ci man dama ko waroon def gratuite kon su ma ko dee def ñuy a a sant ginnaaw kàddu fii ci Darou kenn ci ñoom Moustapha Lo yëg na kàddu yi sant ak ngërëm ak yàkkamti woon kat li nga xamante ni maire Abdou na ko ñu teewlu kàddu yi bàyyi ko ci Moustapha Lo image bu am solo boo xam ne lu ko gën a am solo ci dëkk bi defe naa ci am solo yi la bokk ndax euh, defe naa yaakaar naa lu ne yàgg na fee jaar waaye lu mel ni initiative boo am solo la boo xam ne wax dëgg yàlla euh, dañ koy rafet rafetlu bu baax a baax ndax lislaam sax moo ko njëkk a digle moo wax ne saa nasaafatu minal imaan yi set dafa bokk ci li nga xam ne mooy euh, euh, ci ponk lislaam yi kon wax dëgg yàlla su fekkee ne dëkk bi bëgg nañ mu am image bu taaru bu rafet boo xam ne ku fi ñëw dana méngoo dëkk bi dana méngoo ak wuyoo aw turam Euh, kon yaakaar naa lu mel nii du ci mën a ñàkk ndax xam ngeen ne euh, am na projet yu bari bari yoo xam ne yàgg nañ ko fay def fii ci biir dëkk bi ci loo xam ne luy taaral dëkk bi la ndax ne dëkk bi bi nga ne borom sanc na ko euh, lépp ñaanoon na ko ci loo xam ne lu fi war a mën a am la ci ay xéewal waaye nag ak image bu rafet boo xam ne ku fi ñëw da da la ne dëkk bi dëkk la boo xam ne ku fi ñëw boo demee da am leneen loo nettali ji léegi image bu rafet boobu nag li koy gën a taaral mooy jéem dëkk bi ndax xam ngeen ne bari na yu bare bari yoo xam ne yàgg na fee jaar ñu di ko def ci biir dëkk bi muy la jëm ci wàllum set setal waaye initiative bi nga xam ne jël nañ ko muy euh, euh, société bu bees boo xam ne ñëw na fi ànd kook euh, suñu président Abdoulahad Ka muy ci commune bi ñu taxaw ci taxawaay bu rafet boo xam ne fas nañ yéene dëkk bi léegi amatul fenn foo xam ne danes na fa gisati mbalit wala ñu gis ci suuf loolu nag euh, jéego la woon boo xam ne yàgg nañ ko bëgg wax dëgg yàlla dëkk bi yàgg nañ ko soxla yàgg koo bëgg waaye suñu borom mi ngi koy door dogal euh, ba tax na xam naa ne euh, jéego bu am solo la boo xam ne commune bi daal ak mboolem ñi nga xam ne ñoom la ko war a àndal acteurs yi nekk ci dëkk bi yëpp acteurs développement yi ak képp koo xam ne yaa ngi ci dëkk bi te lu baax rek ñor la ànd nga ci ngir fas yéene daal moom lépp loo xam ne mbalit lay doon wala lépp loo xam ne Euh, suuf lay doon ci kaw tëli bi kenn duutu ko fa gis ndax xale yu am volonté jóg nañ takku taxaw euh, ànd ko ay superviseur ba fépp foo xam ne ab gox la ci dëkk bi ak fu mu mën di doon ci dëkk bi rek am nañ ay équipe yu ko yoo xam ne danañ fa dem bis bu setit la ñuy liggéey environnement bi ñu wër set euh, fexe ba li ñu wër set fexe ba nit ñi di dund dund gu stable goo xam ne kenn ku ne da ngay génn di dox ci territoire yi te doo am doo gis suuf doo gis mbalit doo gis dara loolu ñu ngi ciy sant bu baax a baax a a baax autorité dëkk bi rawatina nag si Abdoulahad Ka ndax taxawaay bu am maanaan la ci taxaw taxawaay bu am solo la ci taxaw ndax lii eh, yeneen ak yeneen sax mi ngi koy def ci dëkk bi yu am solo waaye lii moom Euh, dëkk bi dañ ko yàgg bëgg yàgg koo soxla ay ndaw yu volonté yoo xam ne dañ koy liggéey muy set saa su ne nga xam ne duutoo dox ba gisati mbalit wala nga parce que nii ñu ko jàppoo fii noonu nañ ko jàppo ci dëkk bi yëpp fépp foo dem ci dëkk bi rek am équipe nga fa boo xam ne euh, dañuy xëy di setal ba ngoon jot kon nag loolu initiative la boo xam ne ñu ngi ciy gërëm autorités yi nekk ci dëkk bi waaye di ci gërëm Abdoulaye Ka di ko jaarale ci moom ak mboolem ñi nga xam ne ñoom ñoo si la seqal mbir mi di ko dox ah, di ko wax ba mu egsi fii tey jii ñu di ko liggéey di wax ne daal lii daal dëkk bi yëpp nañ ko ñëpp kontaan nañ ci yàkkamti woon nañ ko it lool ñi ngi ñaan suñu borom barkeel leen ci ba lii leneen leneen ak leneen ak leneen tegu ci waaye daal am nañ ci mbégte ak kontaante bu baax dëkk bépp ko apprécier ñëpp ci bég ñëpp ci kontaan ndax lu am solo la loo xam ne euh, mooy dafa bokk ci dundu doomu aadama muy set waaw ndax nit ki bu fekkee ne li la wër seetut eh, sa dara seetut am na lu bari loo xam ne doo ko man te nit ñi yàgg nañoo bëgg lu mel nii kon nag suñ la ko indilee mu am ci biir dëkk bi ñu di ko def duñ ci am loolu lu dul mbégte ak kontaante ak eh, vraiment ñaanal suñu borom subhanahu wa taala eh, mu mu mu barkeel lii bu baax a baax te te te barkeel mboolem ñi nga xam ne ñoo fexe ba lii am ñi ngi sant bu baax di gërëm waaleykum salaam wa jër ngeen jëf mbokk yi ñetti téeméeri ndaw yi fas yéene jóg sell dëkk bu sell bi Touba ci njiitul maire Abdou Lahad Ka directeur cabinet Cheikhna Diakhaté liggéey boobu nag ñu door ko fas yéene ko tàmbali waaye fas yéene ko ak ci alhamdulilahi rabbil alamin mu jaar am na ndaw nekk fas yéene rek taxaw ba dëkk bu sell bi Touba xar kanam ko ci wàllu mbalit ci wàllu seta lépp loo xamante ne dana tax dëkk bi gën a taaru ñu àndandoo nag tey ji teewal leen fii ci Darou Khoudoss jërë ngeen jëf ñu jëf mbokk yi seen mbokk mbokk mbokk yi moo Fall Mbaye ci caméra bi ci micro bi Aïssatou Fall jërë ngeen jëf mbokk yi